internet yu Africa Global Express TV dal leen ak jàmm nege ni démb gis nañu benn vidéo buy circuler ay waay yuy def ñaawteef toog ci ay dëru dàqe beneen waay ba mu dugg ci ab kër ca diwaanu zone de captage ngir rawale ak bakkanam ñu daal di koy génne lu jaasi 37 teg ca kawam mu bàyyi leen ak dëru ba ñu daal di koy yóbbu ca waxtu wi leen nag jàpp leen ni yoon daal di nay def ab liggéeyam bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar defkatu ñaawteef yooyee ñu nga doon profito ca combat bi doon dox ci diggante Baye Mandione ak Zarko police mu ngay xam na ne teg na ci lu tollook neuf personnes yoo xamante ne ay agresseur lañ ñu fekk ci ñoom ay arme blanche daal di leen di jël yóbbu leen fa mbaxane doonee benn vidéo boobee nag nga xamante ni waaje mu nga doon agressé keneen ku yorub moto daal di nañuy identifier benn agresseur ba ba daal di koy tegub loxo mu ngay wuyoo ci turu Ibrahima Diouf juddu ci atum ca diwaanu ko Grand Yoff moom nag mu daal ne ab tailleur la ginnaaw ba ñu koy identifier nag yeneeni complice am ñu ngi leen di wër bu baax a baax am na koo xamante ne nag mu tudd ab Bokar keneen ka ca des jàpp leen ne mu ngi tudd ab Abdou Ndiaye Moussa Sané Gora Diop Amadou Binta Ndiaye ak ka nga xamante ne nag moom moo Babou Bane Babou moomee ak kii di Moussa Bav ñoom ñëpp daal di nañ leen di teg ñu nekk neuf ci ay doomu aadama yoo xamante ne nag police bu Grand Yoff daal dina leen di tegub loxo ginnaaw ba ñu identifié benn defkatu ñaawteef boobee waxtu bi la nag askanug Sénégal nekk ci guddi gu bër sëtagul li ñuy laaj rek moo di ba xam defkatu ñaawteef yi dañ lay dàq ba nga dugg ci biir kër ñu loqoti la daal di jël sag Senegal ñu dem ba di ko méngale ak fa nga xamante ne moo ñuy ci ministre de l'intérieur di Antoine Félix Ndiom mu di gaaw daal di gindi askanuk Senegal yokku kaaraange gi ndaxte bés bu yàlla sàkk loo yor ci sak moomeel ñu daal di koy nangu rek daal koy jël def ko seenuk moomeel gaañ la te du mujjee fenn ñuy laaj ba xam jamono ji la jotul askan bi jóg di fajal seenuk bopp naam sax bu fekkente ni dañaa gis ak yow li nga xamante ni moom moo di arme blanche da nga yor rek ngir protéger sa bakkan